wër gaal ga mujj naa teer ca waxi kaw weer ya fanweeri doomu aadama ak juróom-ñett juróom-ñaar ca ñoom fa laaj ñu yóbbu leen hôpital faj leen ay niiw yu bëri tamit fekk nañ ko ca biir gaal ga turbine yéene kaay ne man faa yàgga artu ci ndaw yooyu bàyyeekoon faas booy xoolal tey fi ñu mujj rek te mooy yéene kaay ne musiba naaru laay kay xamatina ci géej lu jege juróom benn fukki doomu aadama fa ñoo réer mër ci biir géej gi fanweer ak juróom-ñaar ñoom lañ ñaari niiw le quotidien yéene kaay ne ndaw lu métti faas booy askan waa ngi ca naqara ak tiis a bëri faatu nañu nañu réer ca biir géej ga ca kaw weer leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na société civile bi ak avocat yi Ousmane Sonko ña ngay artu di sàkk ñu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso balaa làmbaaya ñaaw mook ñeneen ña nga xam ne fa ñuy amal grève de la faim exclusif yéen kaay ne Sonko mu ngi ci fukkeelu fanam ak juróom-ñaar 17 jours grève de la faim xiifal avocat am maître Ciré Clédor Ly ci libération ne wér-gu-yaramu Ousmane Sonko fay gën di gàllagoose fay gën di garaaw saa su nekk info yéen kaay ne fi mu toll ni kay ay kilifa yu bëri fa fi mu toll nii balaa musiba xam te mooy ragal kenn ku dee ci grève de la boobu ah, yow fa ngay xool maître Ciré Clédor Ly fa wax ci info yéene kaay ne le 14 août bi mu seeti jee Ousmane Sonko nam ko fekkee wér-gu-yaramam nam garaawee xalaat di ko génnee ca hôpital ba naan yaa ngi koy delloo ca kaso ga loolu képp ku ko def na la wóor ne fa nga def li ñuy wax ñàkk a taxawu nit koo xam ne fa nekk en danger te su boobaa lu ko dal yaa ko teg Seydi Gassama ne man xibaar yi nga xam ne faa koy jot ci avocat yi Ousmane Sonko ak jegeñaale Ousmane Sonko yi fay wane ne wér-gu-yaramam ak jaaxle dëgg am na ci te faay ragal réewum gi xam kuñ tëj kaso mu dee ndax grève de la faim àllintin ne fa ñoo war a bàyyi sonk mu génn kaso ak mbooleem ñi nga xam ne fañ leen a tëj ndax politique nañ ko def balaa làmbaaye ñaaw Aminata Touré mimi ba tey ci yéene kaay bi ne man faay ñaan Ousmane Sonko nga dakkal sa grève de la faim bi ndax nga dund continuer xeex bi moo gën xeex wàllu injustice jaay doole fa métti lool waaye boo ci fàttu doo xam njëriñ fa ngay dund kay wéy di xeex kon faa bëgg ja mooy ne aji ndaw jàllal nañ ko ca kaso ga ci farandooru sonko yi la bokkoon ak ñeneen ñoo xam ne teg nañ leen loxo libération moo ñu ko xamal keneen ku ñu teg loxo abdou saaxo bu sénégal l'évidence yéen ñu ko xamal joxe xibaaru wérut moom lañ koy toppee vox populi na waa Synpics fa ñoo ñaawlu directeur sénégal boobu nga xam ne fañ ko teg loxo yor yor yéen moom fa xamal na professeur Ngouda a xam fa wax ne kenn mënu koo génnee ne weeru septembre bii ci la ñu yeesalaat bureau assemblée nationale léegi su boobaa yeewe nga xam ne ca taxaw lañ bokk ñi bokk Benno Bokk Yaakaar ñi ngi xaar xaar bu yàgg njiit réew Macky Sall ngir mu bi fa jafe lool yombut ci Macky de ndax moom fay bañ bennoo tasaaroo candidat yu bëri te gaañe fa mel ni ku mën a tànn tamit faa xam ñu mer aw seen yoonu bopp wal fajir yéen a ne jiit kay fi mu toll nii waa benn fa ñu ko sëkkatal ci yàkkamti mu wax leen kan la leen tànnal l'observateur mel ni ku naan en tout cas luy jot moom jot na te ki muy tànn candidat Macky boobu am na lu bëri lu koy xaar yu mu war a lijjanti ña cay dox tànki jàmm ak Moustapha Niass seen rapport yaag lañ jëlee ca waxtaan yaag ba ci bañ daje njiit réew Macky Sall Maodo Malick ne faa bëgg ku njiit réew tànn fa ña war a ànd ak moom waaye may bopp rocci làmmeñ gars waruñ koo def ña def lu ñaaw te mooy saboté jumtuwaayu Sonatel yi laas yéen e kaay nee nguurug Sénégal fa fas yéene jëflante ak ñi Touba kilifa ya àndee ci ak candidature am 2024 ba pare ñaanal ko ci yàlla ki soxla ñaan dëgg nag ci watay 2024 yi mooy Karim Wade ah faxe ba fi bàyyi jaar mu jaar fa loolu de moo koy xaar te mooy falu nekk président bu Sénégal te li ni mel du yomb critique yéen kaay ñi ko xamal direct news moom fa ñoo xamal ne juróom-ñaari junne tonn soble yegg si na ci port bu Ndakaaru fañ koo jëndee bitim réew te xam ne yeneen yu ñuy xaar kon fa mel ni seeraayu soble bi léegi tey mu jeex yor yor yéen kaay moom fa ñoo xamal ne Ousmane Sonko fa artu Sall na nañ faxe ba ba ñu yóbbu ay soldaar Niger naan fa ñuy ak ñoom loolu gënu fitna rek lay andi nañ waa Niger yi régler seen problème problème bi a bëri léegi Sénégal mooy rey nit presque bët bu set nga mooy xale bu góor ba am juróomi at nga ko ay paaka rendi ko ca kaw seen terrasse ba ca Sam Notaire gaa ñaa ngi ca enquête ba Fallou Ndiaye la xale ba tudd ab taximan la fa tàqali ko ak yaayam mu jël ñetti doome téye këram buy liggéey baleen ca kër ga ki def ñaawte bi fa xale bi rey ko ginnaaw bu nga ko yóbboo ca kaw terrasse ba yéene kaay bi ne am na ñuy wax naan tàntaay xale ba fañ koo teg loxo waaye loolu dëgg de turbine yéene kaay na ko aha dëgg la de tàntaay xale bi fañ koo teg loxo ndax fañoo njort ne yëfi fa caa dugal loxom te mooy yéen a kaay ne Parcelles Assainies tamit coow lu bëri moo fa am fi toll nii ndax fa ñoo jaaxle ci Abdoulaye Sidibé ab ndaw loo xam ne maçon la anam gam faatoo moo leen jaaxal laas yéen a ne hôpital Albert Royer fa xam ñaari seex yoo xam ne fa ñoo judd ay nen na tuuti waaye fa ñoo taqalantoo kole waaye docteur seen ak njàmbaar faxe ba tàqali leen te ñoom ñaar ñëpp ngay dund ñu ngay nettali fañ jaar l'observateur ne beneen a weer maanaam nekk ci weeram war a wasin waaye fa xëy rek réer ay mbokkam ba fa ñoo nekk fi mu ni ci jaaxle li njort nag mooy ne fañ ko sàcc ay nit ki noppam xana luñ ci sàcc waxuma la ak soxna soo xam ne fa hëmb ba diis war a wasin nga war a xam yërmande ca moom ay waaye yàlla na feeñ ak jàmm te mucc ak jàmm mook doom ja abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak ci bitim